Cissé. ils ont besoin de nos terres. en train de boo xam ne dafa nekk fii Sénégal ñu reconnaître ko mu am fi ay récépissé war a ay projets ci Sénégal. yooyu amul leen ban njëriñ pour ñu ñëw fii. c'est dans une zone pétrolière. Mhm. ne serait-ce qu'au niveau de l'assiette foncière. vous pouvez avoir plus de cent milliards. liggéeyal suñu bopp jëriñul suñu bopp moo ñu aar. cinq mille hectares c'est énorme par rapport à une usine. tout ça. Derrière cette rivière s'étendent les 5000 hectares de terre qui englobent au moins six grands villages de Joal à Palmarin. lii ay tool li ngay seen nii ay tool la. ok ok fii lañ nit ñi béy boo tourné nii. Mhm. xoola lee ngay seen ay nag la. gis nga nag yi. Mhm. lii ngay xool nii ba kaw. coucher du soleil bu rafet bii fii yëpp àll pour sàmm dafa dem nag ba sës fajut lii nuy fajut la dafa dem ba sës fajut donc ñoom seen délimitation fii la ñëwoon dem ba sës fële ci géej gi ah. alors que littoral dañu ne mhm. deux cent mètres après fan bu géej bu géej gi feese à parti de là ba deux cent mètres mhm. kenn amul droit def fa dara da ñoom ñoo ci biir géej gi sax la ñu yóbbu seen poto yi. Edouard Amat Ndong habite ici à Mbissel dans la commune de Fimela. Fimela fait partie des différents villages touchés par ce projet, ce grand projet récusé par certains habitants. Ils ont dit que c'est un projet de 5000 hectares pour du sel. La commune de Nguyen est impactée par Fadial. La commune de Joal Fadiout est impactée par Joal et mhm. Fadiout. Mhm. Et la commune de Niodior. Un projet jugé alors impopulaire. Un éléphant blanc dont la réalisation pourrait avoir des conséquences directes sur la nature, sur l'environnement. Nous sommes dans une réserve animalière. Et cette réserve animalière, est, mais c'est, protégé. Mmh. là où il y a les oiseaux migrateurs, les, hyènes et tout ça. Et c'est, une zone balnéaire, les îles du Salon. Mmh. C'est là où les touristes viennent. Il y a combien de touristes qui viennent par année dans cette zone-là Pourquoi dans un endroit très précis, petit, surface de 2 ou 3 hectares et ensuite acheter ses sels invendus. Le lendemain matin, à côté de Palmarin-Galou, un des villages de la commune de Palmarin, on charge les camions de sel. À cette période de l'année, les jeunes ont du travail. Plus loin, les greniers de sel bâchés, protégés contre les intempéries, sont stockés dans cette grande réserve. Ce n'est pas ici seulement qu'on exploite le sel. Derrière ici, il y a, il y des, multitudes de, de, de, puits de sel. Une saliculture non protégée. Ce n'est pas, pas pensable qu'une usine qui fabrique des tonnes par, par, par jour vienne s'installer ici. Depuis des mois, la rumeur de l'arrivée d'une grande firme indienne dans la zone inquiète les femmes qui travaillent ici dans le sel, principale activité. Mariama est productrice depuis au moins 10 ans Pour elle, il est hors de question qu'elle brade leur seul et unique patrimoine. mooy suñu ndimbal suñu ndimbalu jëkkër suñu ndimbalu doom ndax da ngay toog sa jëkkër ba ñu liggéey boo demee fori xorom jaay danga am looy looy bu si kër ga sa doom war a jàngi boo jaayee xorom da am loo ko bindee sa doom feebar boo jaayee danga am loo ko fajee ndox mi teen xon donc tey liñ siy ñaan mooy loo xamante rek lu ko gën a dooleel gën koo ëppal njëriñ. ñu lañ ma ñu lañ bëgg mais ñu lu ñëw di ko daaneel di ñu suufeel déedéet. ah waaw ce que je cherche euh, c'est de donner un plus aux, aux femmes c'est de valoriser les celles qu'exploitent les femmes mais quant à venir vraiment à faire un autre projet euh, qui va faire du sel moi je suis contre. xorom si la ñu am mooy suñu cosaan dañoo judd fekk fi suñu maam yi di ko liggéey suñu yaay dañu di ko liggéey ñu ñëw fekk fi ñu tamit di ko liggéey. ah ça dépend rek ça dépend ni mu demee. ak ça dépend projet bi tamit ban projet la. Le projet, le voici sur le papier. Une vingtaine de pages labellisées laconiquement. Chancel solaire à Fatik. Dans ces pages, la cartographie des 5000 hectares y est exposée. L'entreprise promet, une fois le projet accepté, de recruter 300 personnes directement parmi les populations locales, 1500 indirectement Un total de 1800 personnes pour un coût de 23 milliards de francs CFA répartis sur 4 années. Comme le maire du village, bon waroon na mënoo ko woo nit et concerté nit ñi waxtaan ak ñoom ñu xam projet bi projet bu rentable la bu am njëriñ Rien que dans ces marais salants, plus de 800 femmes y gagnent leur vie. Elles n'ont pas besoin d'une autre entreprise de production, plutôt des clients. ñoo xam ne ñuy ñëw dañu ko jëndal liggéey bi gën a ñun daal moom la moo ñu gën a intéressé leneen. bon euh, dafa nekk comme un de sourds quoi quand mu ngi fii quand bële mu ngi fii te ñëpp lañ dëkk. Comme a ce dialogue de sourds, va acheter les 5000 y implanter une usine de sel. Dans leur projet, on a vu les matricules de l'entreprise. Société anonyme Sen Agrocel Industrie, qui existe depuis le 23 juin 2022, date de sa création. pas encore un an avec aussi leur numéro du registre de commerce. dañ ko nëbb. ok maire Fimela moo ngi ak projet bi depuis di ko doxanto mhm. fu mu yaakaar ne période bu mu xalaat ne mën na dox rek mu génne ko. On leur a écrit, envoyé plusieurs mails, mais ils n'ont pas répondu. On les a appelés durant des semaines. À chaque Justement, le député maire de Fimela compose l'autre partie du puzzle. Pendant des mois, nous essayons de le joindre sans succès. Nous arpentons les couloirs de l'Assemblée nationale à sa recherche. Je lui envoie un message. Pas de réponse. Il garde sa défense. Si l'usine s'installe au niveau de Palmarin, ces mêmes femmes-là, les seules que vous, qui, vont produire, les Indiens vont l'acheter. Il y a le problème. Ce ne sera pas de la concurrence. Non, il relativise. Ils n'ont pas dit que c'est ba mu faloo maire ak député première action mooy bëgg a joxe suuf si yëpp. man mosuma jaay suuf kenn du ma corrompre man commune Fimela laa moom ma ñor def ba développé ko. ils ont implanté des piquets des drapeaux de délimitation de la surface concernée. loolu waxu waxu ndax sax ndax. kenn jaayul. mais loolu amul Edouard il fait de la politique. dañu soxla foo xam ne. foofu la ñuy débarquer. moom muy wax loolu jaay na suuf ah man maa mination bi il a vendu des terrains des champs man maa ko defal papier yi. Dernièrement, les villages de la zone ont convoqué des réunions publiques pour parler de ces centaines d'hectares de discorde. Ça Pour l'heure, le dossier dépassant une adversité politique est entre les mains des autorités locales. Elles vont prochainement trancher, trancher pour enterrer définitivement ce litige foncier. car une fois sous terre, certainement, la paix renaîtra.